dali na jàmm ñu ànd xëy ka yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gi di réew mi ko di jen xëy dañu xibaar naan ñu réew mi di Sénégal coow li nga xam ne moo fi ama dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Sénégal ñàkk na ci bu bare bare ndax li nga xam ne moom la ñu yàq bërki demoo njaay ci yi fu ko waaye natt daan na koy passé ndaw ñi nga xam ne moom la ñu sa maanaam bombe sociale la journal bi di réew mi ko di jen mooy wax ndax nee na réew mi di Sénégal keroog bi jàppante yi amee maanaam économie réew mi demul ci nga dikkul mbay laara dafa sooxe économie bi dañu ko jàpp otage loolee la ñu nemmee ko ci journal bi journal bi na dafa nërmeeloo gatsa gatsa bi nga xam ne gars yi doon ko wax jamono ji dañu ko jëfee ndax kereñ yi nga xam ne ñooy farandooy Ousmane Sonko yekk takk der yi jàppante nañ ba seen xol sedda yéen kaay gi di Walf Fadjri na violence politique bi am ci mi kan moo ci ñàkk kan moo ciy loole la journal bi xëy di laajcaay yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllu wér yaramu Ousmane Sonko njiitul Pastef jamono ji maanaam tiitaange am na ci tiitaange am na ci bu avocat Ousmane Sonko bi ñu gazé kera moom jamono ji jëlee nañu ko ci réew mi évacué nañ ko yóbbu nañu ko diwaanu Paris la France ndax lu jëm ci wàllu wér gi yaram moom jamono ji dafa sooxe ba jéggi dayo yéen kaay gi de Les Échos nee na Ousmane Sonko bëri xam ne dañoo demoon ngir visiter ko waaye mujj ñu ko gis yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Alioune Tine nay wax na contentieux électoral te mbir mi yeggagul fenn maanaam ay jafe-jafe la ñu ci am te ko lijjante yéen kaay gi fekk fa Sidi Gassama bu Amnesty International section sénégalais daal nay wax ne coow li coow li Macky Sall la Macky Sall ci boppam moo war a respecté askan wi moo war a respecté askan wi seen àq ak seen yelleef waaye tamit Macky Sall bàyyi ñi nga xam ne ñooy ku jéggi ñuy opposé di manifester yaana maara ci biir journal bi ñoom nee nañu maanaam toroxal gii ñu toroxal Ousmane Sonko ñoom dootuñu ko nangooti ci réew mi ndax trop c'est trop Macky li mu nekkee ci réew mi jaaduwul la ñoom waa yaana maara ñoo ngi ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ci noppi gi nga xam ne noppi nañu ko ci mbir mi yéen kay gi di vox xëy di ñu xibaar na ñu manifestation yi nga xam ne moo fi amoon alxamis bi ñu génn am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkana yéen kay gii di lii quotidien nee na kenn ki agent municipal bu mairie bu Médina la foofee la doon liggéeyee waaye bokkoon na ci jàmmaarloo yi Bamba Fall mi nga xam ne mooy maire bu Médina moom nee na dana porte plainte ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ak waa Walfadjri yéen kay gii di la Tribune nee na ki ñàkk bakkanam ci diwaanu Médina ci jàppante yi agent municipal la woona bu Médina kenn ki Parcelles Assainies livreur la woona moo jaar ci koom professeur Maïssa Babou ci biir journal bi ne jàppante yi nga xam ne moo amoon loolee dina indi gàllankoor gu rëy ci li nga xam ne mooy économie réewum Sénégal ndax gisatuma benn investisseur boo xam ne dina jël ay risque di ñemee ñëw di investir ci Sénégal goo xam ne saa su nekk mën naa pëcc xooy yéen kaay gi de ko di cee xëy duñu xibaar naa ñu niki démb ñi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu Ziguinchor ñoom dañu ko tàngal ba seen xol sedd daal yéen kaay gi de l'Observateur moo tax nee na armée jël nañu ko yóbbu nañu ko Ziguinchor yéen kaay gi de ñu xëy fekk fa Cheikh Tidiane Dieye bu coalition Yewwi Askan Wi nee na jamono ci jot na sëkk askanu Sénégal ñaanal Ousmane Sonko mu jóge fi nga xam ne fa ndax mbir mi doy na waar yéen kay gi nee ñi nga xam ne ñu yopp ñoom nag ñoo ngi alerté ñoom ñoo ngi dànkaafu ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramu Ousmane Sonko journal bii di l'Indépendant nee na Doudou Fall mi nga xam ne moom lañu ñu faat diwaanu Médina ñuy wax ne agent municipal la am na ñu koy tuumaal na nervi la journal bii di 24 heures nee na Fadilou Keita bu Pastef te mu nekk ci kaso ji su mun a gerewu xiifal yéen kay gi di Direct News ñu xëy fekk fa jigéen ñi bokk ci coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom nag nee nañu du ñu nangu benn yoon ay ni nit jóg bëgg a salfaañi réew mi ñoom dinañu nekk ci wetu leader sentinelle de la république bi ngir nag défendre réew mi du ñu bàyyi kenn andi pëccëxoo ci réew mi ñoom daal nañuy investir sax Macky Sall ci élection présidentielle 2024 ci rassemblement bu mag bi nga xam ne moom la ñu doon am waaye nag ci rassemblement boobu doon nañu fa wax li Macky Sall liggéey ci réew mi yéen kaay gi de la point ci xëtam mu njëkk ñu xëy fekk fa Pape Modou Fall directeur de l'emploi mi nga xam ne mooy coordonnateur coalition républicaine sàmm sunu réew moom ak ñi mu àndal lépp jaraaf Youssou Ndoye moo présidé woon rencontre boobee la ñu fa waxtaanee bokk ci xool ndaw ñi nan la ñu leen a jàppale rawatina partenariat bi nga xam ne war naa mën a am diggante ndaw yi lébu yi ak lu jëm ci programme mu xëyu ndaw ñi Pape Modou Fall daan wax li njiitu réew mi di président Macky Sall liggéey ci réew mi daan nay wax tamit ne dinañu amale ab tournée boo xam ne dinañu sensibiliser ndaw ñi yéen kaay gi de libération xëy di ñu xibaar naan ñu mairie bu Saly foofee yëngu na ndax dañu fay tudd lu jëm ci wàllum escroquerie foncière ak lu soxal wàllum faux document ngir jaay ab terrain maire ba tegoon nañu ko loxo ak njiitul commission domaniale ba di xaaye seen ak ku ñuy wax Cheikh Malick Ba ñii ñëpp la tegoon loxo ba defeere leen démb waaye nag dafa am ab médiation pénale boo xam ne moo ci am moo tax ñu libéré leen ay yéen kaay gi di ko di cee xëy ñu xibaar naan ñu presse bi jamono ji takku nañu ba dëgëra fas yéene amal ay mobilisation ngir ñu libéré si natango bii di Pam Ndiaye bu Walfadjri yéen kaay gi de la sa nee na maire bu ko bàyyi waaye bi ñu ko jàppoon ne maanaam dafa lëngoo ak ñi nga xam ne ñooy manifestants yi yéen i kaay gi di Walf Fadjri nee na su dee am na ñenn ñoo xam ne ñooy fonto nguur gi maanaam ñu faaliwul état bu Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoo moomee tata yi tata yi nga xam na ñoo yokk paas yi transporteurs yi maanaam faaliwuñu état bi état bi wax na ba sonn ñoom ñu lànk ba tërë sanaaj yokk paas yi yéen i kaay gi di Rewmi Quotidien ñëw na ci vingt-troisième assemblée générale bu MEDES journal bi nee na MEDES ab projet de société la tolluwaayu MEDES li si seen kanam évaluation loolu la ñu fas yéene waxtaane ci assemblée générale yéen kaay gi di sunu làmb wax ci làmb ji nga xam ne moo war a dox diggante caatu yof ak Tyson 2 suba ci dimanche ji journal bi nee na mortal combat la ca arène nationale